partage possible yéen ñi nekk ci kaaw bi dajale dajale leen xaalis bi ayca commencé leen di woote Sénégal di envoyé ay nit ñu commencé Sénégal di jox boy yi ñu préparé wu ñu ñëpp di jóg jël seen xaalis financé ko ci jox gars yi ñu waajal seen bopp ñoom it ñu au moins ñu am ay fonds de roulement yu ñu mën a xeexee waajal seen bopp bii bu takkarnaasee amatul taxaw bii bu jógee amatul taxaw te duñ calculer dara kër juge seen papa yeeg seen yaay yi duñ bàyyi dara le 17 bi incha allah bu fekkee dañoo décider ñoom ne dañuy taal Sénégal bismillah kon nag lu ci waay góobe na na na nga ko assumé lu ci waay rendi na nga ko assumer ok lu ci waay mandi lu ci waay naan na ko mande incha allah di nga xam ni ba xam yéen seen bàyyi yéen lañ bàyyee Sénégal wala ñun ñoo bokk Sénégal ñun yow Ali Siré Ba ñoom ay Ablaye Ndiaye et cetera et donc waajal leen seen bopp les gars waajal leen seen bopp la décision finale waajal leen seen bopp le 17 awutul leneen de ñoom nee nañ duñ respecté CEDEAO décision wu cour de justice CEDEAO duñ ko respecté nee na ñoom euh, cour suprême décision bi la ñuy respecté cour suprême nag ñoom juge jox nañ leen alal jox nañ leen ay kër ñuy waajal pour def di saal warke alxuraan di ngeen ñu fi fekk billaahi bu dee seen bàyyi yéen nañ jur ngeen baax ñun suñu ndey yi dañoo jur ñu bon dinañ ci xam dara dinañ xam ba xam yéen a bon wala ñun ñoo bon dinañ ko xam ba xam yéen mun ngeen fi def ay élection sans Ousmane Sonko loolu ku leen ko wax da leen di nax ku leen ko wax day kàcc du fekkee ni yéen alalu askan wi ngeen di jël di ci ñu leen ci jox ay terrain di leen ci jox xaalis moo leen jaral yi salte yi di ngeen xam ni gënu leen ñu ndey gënu leen ñu bàyyi te ñun fi ngeen ñuy fekk décision nag saaba si fay lañ bëgg a kase saaba si fay lañ bëgg a kase di ko xeex ak ñu ay ñu salte ñu taxaw ne bii mooy dernier bi di wax papa yaay maam nijaay bii mooy dernier bi cour suprême Macky Sall jël nañ leen fay leen ay millions dégg leen ay millions à travers Aïssata Tall Sall ak ay terrain ca Saly pour ñu éliminer Ousmane Sonko ci élection yi def ay élection sans Ousmane Sonko préparer seen hold-up électoral sàcc élection yi bàyyi fi Amadou dama ne loolu ñu ñuy wax ñu ngi woo njabootu juge yi salte yi yi mel ni ay Ablaye Ndiaye yu mel ni Ali Sireba et cetera et cetera ay ñoom euh, euh, Abdou Karim Diop ay ñoom Hamadi Diouf seen i njaboot xam nañ leen xam nañ Hamadi Diouf njabootam fële ca Kaolack xam nañ fu ñu dëkk xam nañ njabootu euh, Abdou Karim Diop yaayam ak baayam ak i frère am fu ñu dëkk ca Kaolack xam nañ ñoom Ali Sireba ñoom ñëpp dinañ affiché incha allah seeni i dinañ afficher incha allah seen i euh, njaboot fu ñu dëkk dinañ afficher lépp seen adresse juge corrompu seen nom prénom femme enfant lieu de travail école lépp dinañ ko afficher incha allah duñ fi amee jàmm duñ fi amee jàmm tey te duñ fi amee jàmm ëllëg bu ñu taalee dëkk bi duñ ci mucc bu ñu taalee dëkk bi duñ ci mucc mukk seen njaboot yi duñ ci mucc seen papa duñ ci mucc seen yaay yi duñ ci mucc kon nañu waajal seen bopp nañu waajal seen bopp bu baax les gars voilà. loolu rek la ñu ñëwoon pour wax leen ngeen waajal seen bopp bu baax la 17 fu mu yem rek muy loolu fuñ ñu woo rek ñu wuy leen te fuñ ne naan rek ñu nekk fa loolu kese la fu laa jaay daqaar mbaa mañam jeexal ko jooy nag fajut naqar ñu jóg nag dox seen kaw wan leen ni ñoo leen gën a sadi foofu Macky Sall saltana ay nitam ay dëmm lañ ay nooxoor lañ kuy wër doome xaram ku bëgg a sa doom doome xaram la rek xoolal ko ànd ak Macky Sall xoolal nit yu bon yi ay nit yu bon lañ ñu bokk ak ñun lañ nag am ay deret am ay yaram mais ñoo c'est la pire doome xaraamerie que l'histoire du Sénégal di ay nit yooyu jur ay doome xaraam yu tekkiwul sarab ndayam nekk ci internet beeg nekk ci réseaux sociaux yi di def yëfu salté ànd ak Macky Sall ne da ngay éliminer askan wi doo leen éliminer askan wi askan wi doo leen leen billahi dinañ tàkk seen kaw wallahi dinañ boy nday seen kaw ba ngeen xam ni ñoo leen gën a sadik billahi wallahi wa taalahi fii doo leen fi toog duñ fi toog di dund ngeen ne yéen mun ngeen xañ Ousmane Sonko élection yi dinañ taqaar seen nday ba ngeen polombe barki alxuraan dinañ toj seen cootu nday ba xol ba ngeen rëccu lu ngeen génnee ci dëkk bi yéen yëpp ak képp ku ànd ak Macky Sall dinañ toj sa cootu nday ayca foofu la ñuy yem la femme di procureur général Ibrahima Bakhoum wax naa leen ko Ibrahima Bakhoum góor jigéen kii nga xam ne mooy tëddee Luc Nicolaï Luc Nicolaï di ko juutal yéen wax ne gis ngeen làmp gi bi passé Luc Nicolaï lu mu sol marque boobu moom mooy seen marque club bi club franc-maçonnerie góor jigéen lu mu sol marque boobu mooy seen club franc-maçonnerie góor jigéen yi laalante sali Luc Nicolaï ak Ibrahima baaxum procureur ñooy ñooy ñamante ñooy juutalante tey Ibrahima Bakhoum juutal ko ginnaaw suba Luc Nicolaï juut ay góor jigéen yi sax sàpp lañ sàpp franc-maçon bokk ay bokk benn club pour ñu xamul nag am na des dof yoo xam ni Sénégal lañ nekk wala ay doomi xaraam yu seen bàyyi tekkul dara seen ndey tekkuñu dara ñuy mar bunu Macky Sall yi ñoo xam ni tekkuñ sarab ndeyam Macky Sall xamu leen kenn xamu leen ñooñu noonu nga xam ni bu ñu génn di jéem a nax sénégalais naan ay góor jigéen nan la amee jabar góor jigéen yëpp am jabar góor jigéen yëpp am jabar fa ci kaaw bi fii ak feneen ak góor jigéen Sénégal yi góor jigéen bu gën a mag Sénégal gën mag Sénégal faatu na di tëdd ñu jàpp ko muy tëdd ak ay taalibe di tëdd ak ay góor ñu tëj tëj nañ ko kaso maintes fois am na jabar bàyyi na fi ay doom ko doome xaraam yi nga xam ne ñooy nax si yenn sénégalais yi di leen foowee naan leen ay góor jigéen euh, euh, du am jabar rek doo góor jigéen yeewu leen yeewu leen góor jigéen day am jabar doo góor jigéen day am doom du ko teree day juutu ñu koy ñam te day am far day am jëkkër nay leer naññ li nikolaay góor jigéen la Ibrahima Bakhoum procureur général góor jigéen yi sax sàpp lañ pour ñuy nalaw njéeme sekk jabaram la njéeme sekk baaxum moom it magistrat la tribunal grande instance de Dakar Macky Sall nommé na ko en catimini comme inspectrice générale d'État IGE te IGE nag lu fay yóbbu ay nit concours la chaque année depuis Macky Sall ñëw fii IGE amatul concours Macky Sall moo fay fal neex yàq na IGE yàq na institution yépp IGE concours moo fa doon yónni yóbbu nit léegi nag moom bu mu ñëwee ba léegi yàq na institution yi amatul concours day fal par rapport ak sa jëkkër lu salte li mu def donc ki nga xam ni mooy jabaru Ibrahima baaxum procureur général di Ndiémé Seck dinaa leen indil photo mi yëpp moom it magistrat la Macky Sall nommé na ko inspection général d'État comme inspectrice général d'État en récompense pour service rendu par son mari ibrahim a baaxum dans les différentes affaires concernant Ousmane Sonko donc lu jëkkëram def lu salte li mu def ci Ousmane Sonko tax na moom Macky Sall nommé jabaram muy Ndiémé Seck mu def ko inspectrice général d'État général d'État ay moromam nag nekk ca palais de justice ba nga xam ni ñoo ko gën a liggéey ëpp koy diplôme ñu bàyyi leen foofu ne ñukk foofu commencé na am ay rumeur coow laa ngi commencé riir ci tribinal bi kon daal Macky Sall day wane ni képp kuy def lu salte képp kuy jéem a éliminer Ousmane Sonko moom dina la fal dina la jox kër dina la joxi terrain dina la jox xaalis ba pare dina jox say jabar rëccal say say doom ñu dem ay états uni wak ay Canada jàngi mu fayal leen parce que instant yi doomu Abdou Karim Diop yëpp ñi ngi fii di jàng kanada gi Macky sàll moo fayal eh, lépp ay doomam moment bi mu def yëfu Sall Abdou Karim Diop procureur doomam yi ñi ngi fii ñëpp la jël jëm na doomam yépp Abdou Karim amatul benn doomam buy taxawaalu foofu lu mu biiral ci ay njaboot mat na équipe nationale lu mu biiral ci doomi jàmbur ay jigéen mat na équipe nationale ñépp ngi fi ma am kii nga xam ni mooy euh, Macky Sall moo financé fayal doomam yépp ñu dem moom noonu lay def day da lay jox kër jox la ay deux cent millions trois cent millions jël say njaboot yóbbu leen ñu dem après pour nga mën a nekk yow nga xam ne yow rek yaay wéet sa bopp nañ rey sa nañ rey sa ñoom noonu la ñuy liggéey donc ñoom ñëpp seen doom yi ñu ngi fii te Macky Sall moo leen financé moo leen jox alal pour ñu ñëw fii ñun nañ am ful la nañ am fayda mënuñu tëj suñu université rey ñu tëj ñii toroxal ñii euh, euh, daq ñi ba pare ñoo bëgg fee ne dañuy éliminer Ousmane Sonko. dama ne yàlla moom moo def ni Ousmane Sonko kenn mënu ko fi éliminer fii ci Sénégal nekk ci jàmm réew mi nekk ci jàmm loolu noonu dama ne bu ñu xeexul jinne yi dañ génn xeex. te dinañ xeex nag ñun dinañ xeex na leen wan ni loo leen góobee gar ko te loo leen bax ñu ngeer ko